tudd ma ko léegi muy sëñ Ablaye Seye mm-hmm. nga xam ni mooy yëpp la ciy def di ci def xéwalam xaalisam ak jotam lépp rek ndax fu soo desee lay jógee. otoom mhm. lépp lay indi ci liggéey sëñ bi. te maanaam séntu ci dara. Mhm. waaw séntu ci dara liggéey bi bu baax. moom ak sëñ nga xam ne tam moo ne Sénégal jiite liggéey bi. moom it di jàmbaar lool nga xam liggéey bu xew rek day dinañ ci dem. Mhm. kon ñu ngi koy santaat di ñaan sëriñ Tuubaa nga xam la ñu liggéeyal. mu fayal nu boppam. di santam sëriñ Mbaye Seck ñu ci liggéey bi nekk ak ab TV ñoom euh, Baye Malick Ndongo ak ñoom suñ góor ñoom suñu Assane ñu ngi leen santaat bu baax di leen nuyu di nuyu itam bu baax waa Sat Vision ak waa Touba Allemagne TV xam ne àndoon ci liggéey bi suñu Abdou Sy la nga xam moo dalal liggéey bi fii tay jii këram ñu bu baax di ñaan suñu borom gën liggéey bi di sant baax itam suñu soxna yu nga xam ne ay jàmbaar lañ lool muy soxna jaara sellal ak soxna Jóob suñ góor nga xam ne dëgg yàlla ñu bëgg suñ tubaale fonk suñ jëm yi lool fu ñu dem ñuy defal teraanga ñu ngi leen santaat bu baax di sant nag bu baax Serigne Modou Thiam bi nga xam ne mooy secrétaire général bu fédération bi mm-hmm. liggéey bi bañ ko xalaatee bañ ko waxee ci noppam fa saa si la ko daal di yaatal daal ci am mbégte lool ba moo waral lii kon ñu koy santaat bu baax di sant waa fédération bi yëpp macha allah liggéey bi nga xam ne yéen a koy def ci si Abdou Lahad Mbacké muy luñ teg suñu bët ñu ngi leen ciy bu baax di ñaan borom liggéey bi nangu ko di nuyu baax fédération bi xam ni xam nañ leen baax ñoom suñu Moustapha Ndiaye ma nga Sénégal ñun si Abdou Lahad ngi leen nuyu waa daara Serigne Saliou Mbacké ci jiital Serigne Fallou Ngom ak Serigne Mame Balla ak ñoom nangol Saliou nga xam ne bëgg Serigne Saliou lañ. suñu jëm xam ni. cara bëgg la. comme ni ko waxee léegi. ñu ngi leen di ak ñoom suñu taxaw. Hmm. xam naa li duuf ci nag bi xajul ci waaye comme ni nga ko waxee nañ ci yeneen jotaay xam ne comme suñu Mouhamed Thiam ñu ngi ko ubbee. naam hmm. ñu ngi leen tuubal ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko fi. Hmm. xam ni sëñ bi la. ak ki nga xam ne moo lay liggéey ci bis bi mooy Cheikh Abdoulaye Khane Mbacké lépp loo xam ne am na ci rëcc rëcc rek suñu jëmmi xeebu yi la rek te di nekk ci eh, peggal sëñ bi di ñaan lépp lu ñu fi liggéey rek sëñ bi nagul la ko kon ñu leen tuubal di leen ñaanal jàmm di ko sàpp ci yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu قلبي له في هتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار يلوم جسمي دهبا في الجنوس بلا علم ولا حمل والنفس خرار ما زال للخير يده ويكسبه وللسهادات دهبا وخرار يلوم وهو في غير وفي كبل بإذن ربي والمبوس مبرار خداق جسمي أما قلبي يلبه من المناقب تسويف وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لمصنوبي وفككا كبلي رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن أبي بالله حفظه الله